diggante Brise de Mer numéro 2 T-Max arbitre ba sifflé Brise de Mer la ñu jàkkaar lool t moo ñu won ginnaaw moo takk njañi ci bopp bi liwaatoo bi dafa xaw a yàgg Brise de daa mel ni ku bëgg a dem cokaas na léegi waaye dalul 12 mai Tmax 12 mai gën naa wàcc Tmax def na retrait de corps dellu si waat 12 mai combat spécial Tmax a ngi dem cokaas na léegi mooy xeex ak moom door ko daw na jël ko moom Tmax lu koy def oh abi sifle na jël amul jël amul. del si leen ci digg géew bi arbitre bi laaj na leen sifflé na bëre nañu léegi ba mi-temps nanu abordé sànq combat bi buñ ko jëflantee combat bi du yàgg Brise de Mer numéro 2 T-Max na léegi T-Max moo ñu wan ginnaaw Brise de Mer la ñu moo ñu féete à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 Demba Cissé changé na pied daanu na. daanu na. Demba baaxul daanuwaat na. oh. door mu daanu. kaawu na. na mu na. mu xeexee baaxul. Demba Cissé kaawu na. Demba Cissé kaawu na. Ndeysaan Brise de Mer daan na ko. dafa jël coup. Ousseyn li ma la doon wax a mbër des fois di nga jël coup boo xam ne mën naa yàq sa làmb. mën naa yàq sa làmb. Brise de Mer